mel ne sax lii occasion la ci man ndax damaa xëyoon dikk di seeti Serigne Sidi ndax Serigne Sidi dafay sama wëllëre bu yàgg ñu ko xam ne mille neuf cent cinquante cinq ñoo ngi ànd sama digg sax ndax moom waxoon ne damaa bëgg nga ñëw ci kër gi xam ne Serigne bii moo ko Sëriñ Fallu ñoo yem ci yow te koo xam ne xaritoo na man ni nga xaritoo moom amul amuloo ko feneen kon nag ma bëgg nga ñëw jàppale ma ci bu ma fi nekkee nga nekk fi su ma fi moo ko suñu bokkee nekkit dina baax ba loolu moo sabab suma digg sëñ bi yéen bu ngeen jóge ci ku mel ni sëñ Sidi andiwu lu mel ni waxtaan ci ku tedd googu du Cheikh Abdoulaye Mbacké itam da ngeen am cër boo xam ne bii eh, war na noo bokk di waxtaan waaye rawatina nag bu ngeen jógee ci ku mel ni sëñ Sidi eh, ci ku mel Ahad Mbacké mu baax ma nga xam ne defar na fi loo xam ne walla yokk na fi loo xam ne euh, luy defar di wéy rekk la suñu lool ak defaram hmm, mu ngi dox ba ba ba léegi te kenn xamul it fu mu yem hmm. ndax sëñ bi murit yëpp ak lislaam bépp amoon nañ toogaay yu baax waaye bii mu ñëwee da koo yokk. mel na ñu bari sax boole naa ci loo xam ne dama ko bëgg a leeral ñu bari dañuy wax maak moom ku mag di ko waxtaanee ci grand place yi di ko wax fu ne bëgg ñépp xam ne nag ba ma ko xamee ba léegi mag laa ko def mooy sama mag ñuy ànd xëy na may na ma ci boppam sax loo xam ne moo tax ñu bari defe ne ma ma ma maa ko mag wala ñu di ñu tëkkale waaye mooy sama mag sëñ nag moom hmm. jëmm la joo xam ne ju yomb waxtaane la hmm. ndax nit la koo xam ne kii ku ne fàng la hmm. daana wax ne bu ma juumee ñu bari juum keroog disque bi mu njëkk bi mu toogee fii loolu la ci jëkk wax noonu it la doxee ñëpp daana toog ba guddi ñu ne ñëw wuyu ko daana toog ba guddi moom ci boppam mu ànd ak jëmmam ñëw fëgg ma toog ak man ci mbir mu muy laaj te xam naa ni noonu mu ma ko defee mm. da koy defee ñeneen mm. moom ku yomb àndal la nag mm. waaye ku jafe àndal la ndax nit ku dëggu mooy lu mu bëgg nit ku ñàkk fulla it waxu ci dara dafa bëgg li nga koy wax doon dëgg te li nga koy wax di loo xam ne lii lu mu ko seet seet du gis lu dul loola loolu doxi nit lan doon dox bari na lu ma daan wax loo xam ne lii sax ñemewuma ko wax ak foo xam ne àggale woon na ma fa ci boppam foo xam ne sax dafa jàpp ne ëpp ëppoon na ci sama digg moom waaye lu ci ne moom ma ko may te mosu koo nangu waaw daana ma dénkit ndax daa dox ba sës ci mbir mu ne ma nangam lu ci sa xalaat mu wax ko ko mu ne ah sëñ naam day nit ñi boo leen toppee li la war doo ci def dara ndax lu la war lu am nga lay wu la ca sa boo def loo am la yow loo ci génn génn ci kër loo fi yàgg yàgg doo fi def dara te ne fi bay jógee fi defoo fi dara it dara jaru ko loolu daanaka wax ku xamoon addina la nag masaa ñëw wax ko dara boo daanee lee mu ne ah yoon daal pàq ci wax lay yow dong te yeewu <laughs> nañ nag bay si ka ca des yu mel noonu daa doxe ci lépp ku baax ku amuk taalibi ku bëgg sëñ Tuubaa moo xam ne kii wax dëgg yàlla sëñ Tuba rek mën a am doom ju mel ni moom. sëñ Laat ni mu meloon li doon doxal ci defar nit ñi keneen ku ko mosoon di def ñu ragal la waaye moom ni eh, mu doon defare dafa dafa dafa dafa dafa dëgër ba noppi lewet loolu nag lu jafe la waaw wax ji moo xam ku ko mës a dégg euh, te newoo ci euh, li nga war a nekk melo li nga war a mel ku ko ku waxin euh, ñi ngay ñi ngay ñi ngay defar danañ ànd ànd ak waaye sëñ bi laat euh, doxin woowu la doon dox ba noppi sa da koy gën a bëgg ndax dangay ngay ci biir wax ji lewet gu mu lewet ak njëriñ njëriñ njëriñ njëriñ lu lu wóor loo xam ne dafa lay wóor ne moom la la bëggal moo tax da nga ko da nga ko daan da yoo xam ne yi lu jafe la ci seen lot jélloo du yóotu mm-hmm. du dox guddi loolu lépp xeeti doon doon lu la mm-hmm. loolu daana ko daana ko wax te di di ko tere it ku mu jaxasool fu mm-hmm. du yilifa ma yilifantu daal mm-hmm. dama yilif bu wér mbaama ba du ma defantu it diggante def ak bàyyi it awma fi fu may taxaw moom euh, damay def wala ma bàyyi su na ma ne waaye suñ daam boo yoroon ñetti junni ñetti nit ñëw kii diis la soxlas ñetti junni kii diis la soxlas ñaar kii diis la soxlas benn mooy def ma ne ko ah xanaa séddale leen ko. Hmm. mu ne ma cam kon nga yàq ko. Hmm. ndax kenn ci soxla am soxlaam fajuwut. Hmm. seetal ka nga mën a faj soxlaam rek nga jox ko ko ña ca toog di nekk. <laughs> yooyu daal la daan taxa ci lu mu. kenn mënu ko sërfal mbaa nga fexeel koy ba mu ànt daana wax it naan ku defee ne yaama moom. ku defee ne yaama moom danga la xel seen gaa làmb sa sa poste doo daj dara. waaye Sëñ Lahad de moom ku doy waar waaw ndax ni mu doon yare nit ñi ak ni leen doon defare dafa dafa àndoon ak teggin yu rëy rëy rëy ànd ak fulla ju rëy rëy ak fi lu rëy yu bari da ko daan diisoo waaw ah, di ko waxtaane ak koo defe ni sax waru na woon a wax ak moom waaye xeebul xelum kenn waaw daana wax nag naan nit ñi de da ci am ñoo xam ne buñ la waxee dara donte la lu baax la it dañ lay taxawu ci nga def ko mm-hmm. waaye nag yow li tax ma mën a dégg yow mooy ba mu waxee da ngay may wax rek bàyyi ma ak sama bopp mm-hmm. loolu nag laa bëgg mm-hmm. loolu it bañu ci woon dara ndax man maa ko jëkk a tudd ndax fekk naa bis boo xam ne bii danay doxante mu ne ci sama oto mm-hmm. ma di ko conduire ñun ñaar doo nga ci ne mm-hmm. ñu romb ci rond point bi mm-hmm. fekk fi booba eh, civil yi rek fi ne ay dongo mu weesu ne ñu dox tuuti mu waaw sëñ daam lii moom noo ko gis ma ne ko lii de sëñ bi ak njëlbeen la waaye du mën a sotti ndax civil mënut a yor moroom moom daal ay gendarme mbaa ay alkaati hmm. ñoom ñoo fi mën a ne mu dañ tuuti tuuti mu dóor ma hmm. daa doxantu ba yàqoo yi mu ne mën a ñu wàññi ko <laughs> ñu wàññi ko dikk hmm. waaye keroog ba amee nga xam ne waa ji dikk na ci sëñ bëgg koo def noonu mu doon def ma mu ne ah sëñ daam da sa wax ja tey jii moom defe naa ne danaa ko jëfandikoo <laughs> am na ab dégg saay saay boo xam ne daal dégg naa defa dem fa sëñ bu xaadir bëgg koo jàpp def ko ñuy def bana mel noonu boole ko di dimbalee ci yoon wi ak fépp fu ne njëriñam daana fa dem boole kàllum yu baax yuy defaree nga xam ne moom léppam laa jàpp sax ndax ku bëgg lu baax euh, léppi sëñam laat ngay jàpp lu mu mës wax rek te nga bëgg lu baax rek danga koy jàpp loo mës a gis mu def koy euh, daf la daf lay yokk pas-pas rek moo tax yi mu ma yi ma doon jàpp ci moom bari na mas naa ko jox itam nag benn kaamil boo xam ne euh, wax dëgg yàlla euh, gis naa ca baatin ña fekke woon ba mu koy joxit gis nañ ci bàttin euh, boobu soxna moom yi mii ma nga fa ci jotaay ba ak sëñ ma sëñ lan mare madame ak alay Cheikh Touré bale dëkk ngir ngi new dëkkoon ngir ngi new waaw euh, ak ñeneen waaye bari woon booba lay soog a kër gi booba daf koy soog a sanc sa defar rek te eh, booba seng yi fi ne booba kër gi lépp seng la néeg yi mu def ci bi ne kees gu ne benn néeg la fa def ak benn mbaar rek yëpp lépp seng la ma ñëw jox ko téere bi fekk mu ngi toog ci benn canapé nii te ab tabulier ci wetam euh, moo ko joxee téere bi jëm nag la téere ba téere ba téeméeri këyit ak ñaar fukk la maanaam isib bu ne ñaari këyit laa ko def waaw maa ko bind waaw bi ma ko joxee mu xool xool xool ba yàgg mu teg ko ci tëbale bi am nga kees yi booba daana am ñaari kees yu sësaloo waaye day am bunt ci diggante bi mu dal di jóg kees gi ne woon dugg ci geneen kees andi benn jaafira jaafira jaafira xam ngeen jaafira dal di ñëw fab téere bi prof ci jaafira ji mu yem képp waaw képp wul di nekkul lu lu kii lu ñuy puus puusal mu muy ngir mu xacc wala mu dugal ko ci manqué yi daf ko cee def mu mel ni moom lañ ko def mu ne la lii doy na war mu ne jaafira bii day benn waaye ma ko fi joxoon rek moom ko ko fi andiloon euh, ma teg ko foofu ci ci bu bi kaw buufee bi ba ba ko fa tegee maa ngi koy door a jëlaat nii. xam nga loolu doy na waar. waaw du fàtte dara nag ci loo ko wax ci lu baax. bu lu bon nag du ko déglu moom boo ko waxee bala ngaa daanee mu ne ah. Hmm. ma ci xam la ko. ndax Cheikh Abdoulaye saa bu ma saa wax sa pas-pas yokku saa bu jëfit sa pas-pas yokku loolu nag yàlla ak yonent ak Sëñ Tuubaa rek ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko mën a fay am na it ay baat yu ma fa yooyu moom dama dama koy bàyyi waaye xam naa ni daal mu mm, ngi doon attaaye booba yor yor la nag mu naan tuuti dal li may jox kaas bi des bi xaaj bi ñoo fa dal li may xaw mel ni ñu ñu ci itewoo bëgg ma maanaam mosal leen ci sëñ sëñ sëñ dan mare madame moo ma ne bu ci bu ci bu jox kenn de naa la liw rek ba ñëpp toogee nag ba ba ba dal nag mu ne ma tànk man mi li xatti li ma ji nag ma ji mosal loolu quoi ah, waaw yow ma joxoon ma ci may kenn rek moo bàyyi ma bàyyi ma far ko kii rek